ayca mbokk yi internet yi nuyu nañu leen ziar leen yéen ñu ñu bàyyi xel euh, ci solution info solution TV. gërëm nañu leen ci bàyyi xel bi ngeen ñuy bàyyi xel nuyu leen bu baax a baax nag euh, euh, nuyu euh, képp koo xam ne rek yaa ñuy suivre jamono jile ci l' émission des émissions ñu dem nag ba Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar ñaanal leen jàmm ñaanal ko nag suñu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñu borom nag yàggal ko fi loolu mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko si biir këram. l'émission des émissions door na ñu fas yéene ko euh, waxtaanee rek euh, comme ni ñu koy xel di defee saay su nekk fas yéene si ànd ak euh, Sandiogou Mbengue ñu daal di koy bàyyi mu nuyoog internetu solution info yi su ko defee rek ñu daal di ñëw yaatal li nga xamante ne ni war nañ ko waxtaanee léegi léegi incha allah alaaji kàddu gaay ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaan ci yow. Mm. Demba Touba nuyu xas dinaa dem di ko ñaan mu yàgg fi ànd ak wér. waaye di nuyu di ziyaar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool tànd ak wér. di nuyu kilifa diine yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi di am mbégte ak kontante ci sénégalais yi nekk ci biir réew mi mais aussi tamit sénégalais diaspora bi. Mhm. ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm. seen taxawaay rafet na. Mhm. seen patriotisme am na solo. Mhm. wane nañ ñi mhm. ñu bëgg réew mi lañ mm-hmm. te nit lañ yoo xam ne ñu sopp réew mi lañ mm-hmm. eh, li Youssou Ndour waayoon ne picc nga ca kaw waaye xel maa nga ca mm-hmm. suuf maanaam ñoom ña nga ca kaw waaye seen xel mi yëpp a ngi ci suuf loolu c'est important waaw defe naa ni woy bi nga xam ne moom la waxoon ne jomay eh, tukki fu ñibbisi waaw ñële non seulement bëgg nañ it bu ñuy ñibbisi ñëw ci réew moo xam ne réew mu jag la réew mu dal la réew mu avancé la loolu nekk loo xamante ne bi lu am solo la <laughs> donc ñu ngi delluwaat encore di ñaanal diaspora bi mm. yàlla leen sunu borom gën a dëgëral yàlla na leen sunu borom gën a jàppale parce que seen taxawaay mm-hmm. am na solo mm-hmm. euh, patriotisme bi nekk ci ñoom mm-hmm. lu solo macha allah ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax saay su nekk rek euh, bokk nañu ci ñi nga xamante ni nii dañuy bàyyi xel euh, solution à chaque fois booy gis seen ay commentaires ñu bëri si bitim réew la ñu nekk Alaaji wax na ko yal na leen yàlla suñu borom taxaw defal leen jàmm ba bu ñuy ñibbisi fii ci Sénégal nañ fi fekk jàmm ju mat sëkk. Euh, kon nag mu ngi noonu comme on a l'habitude de le faire chaque vendredi rek ñu ñëw ci yenn débat yi nga xamante ne ni ay waaye politique yëkkati nañ ko jëmale ko ci doxalinu réew mi ñu daal di ci tànn rek as lëf rekk waxtaane ko daañu ànd ak yéen ci euh, jotaay yu Cheikh Yérim Seck boobu nga xamante ne nii mi ngi doon jàkkaarloo ak euh, ki nga xamante ne nii mooy. Euh, waa ji nekk TFM tur bi laay Pape njaay Ndiaye euh, wax fa nag wax joo xamante ne ni daanaka rek mi ngi def viral ci réseau sociaux yi bu ñu ca noppee nag nañu ànd ak Daouda Mine mi nga xamante ne ni xam-xamam wa màcc na ci wàllu jurist am na ay kàddu yu mu yëkkati jëmale ko nag ci dossier ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko ak yenn détenu politique yi nga xamante ne ni jamono ji ñu ngi ci kaso yi. jeexalee ko nag ak ki nga xamante ne ni moo ji El Malick mi nga xamante ne ni moom nag moo ngi bokk ci parti bi di Pastef di xaritu Assane Mesere ay cheikh dañ koy daal di dooree nag ak ki nga xamante ne ni moo di euh, Cheikh Yirim Seck kàddu yu mu yëkkati nañu dem xool ko ba noppi doog a dikk commentaire. élection yi yaakaar nga ñu am ku ko ci mën a ci dès premier tour. waaw selon affaire yi ni muy demee. Mhm. Euh, Amadou Ba mu taxaw. Mhm. taxaw def le trop plein de son camp yaa ngi dégg. Mhm. ok mën na gañe au premier tour. selon scénario aussi. benn candidat Pastef bu taxaw mobiliser force Pastef yëpp mën na gañe au premier tour. octobre alaaji dégg nga kàddu yi nga xamante ne ni eh, Cheikh Yérim wax na ko par rapport ak eh, élection yi nga xamante ni ni daan ko amal ci février 2024 mu ni eh, Amadou baax mi nga xamante ne ni moom la Macky sàll tabb ngir rek mu daal di jiite boobu les coalitions bu defee am na mu taxawee rek dina gagné au premier tour est-ce que loolu nekk na loo xam ne luy yomb lay doon. waa xam nga Cheikh dafa wax lu mën a ne wax lu munta ne lépp bokk ci même jotaay bi moom moo ko gën a leer ni Amadou Ba mënut a gañe bay gagné premier tour moom loolu leer na ko. Ah, lu tax mu wax ko ko. waaw ah, li tax mu wax ko dinaa ci ñëw euh, mais leneen li mu wax. Hmm. mooy que ni biir na ko ni Pastef Ousmane Sonko ak budut Ousmane Sonko. Ousmane sonk ne diw la mën naa gagné premier tour. loolu moom lu ko leer la. léegi nag lu tax mu jiital Amadou Ba mi nga xam ni mënta gagné ba noppi mu mel ni daf ko jox ku am doole joo xamante ne bi mën na gagné premier tour bul fàtte ni euh, Cheikh Yérim avant Amadou Ba di nekkaane bokkoon na ci ñi ko doon campagnal mhm. maanaam Cheikh Yérim relation ak Amadou Ba lay waxee ak fi nga xamante ni fii fala ko Amadou Ba féete peut ak mi nga xam ne noonu lañ demee mhm. foofu lay waxee moo tax lépp lu muy wax dana ci dugal Amadou Ba lépp lu muy wax dana ci dugal Amadou Ba xam Amadou Ba yàlla dafa def mu nekk nit koo xam ni mhm. euh, am na nu mu demeek ñu bari ci presse bi am na loo xamante ni bi demee na ko ñoom moo tax dañ koy campagnal ba campagnal ko fu dara newul boo gisee même li tax ñu soisir ko c'est parce que dafa am ay lobby yoo xamante ni bi tey ñoom ñooy ñi nga xamante ni bi ñoo koy propagaanal comprendre dëkkale ko ci noppu nit ñi mm-hmm. presse bi genn wàll gi yépp dañu ànd ak ki nga xam ni mooy Amadou Ba parce que presse bi dañ nekk ci système boo xamante ni bi bu ñu sañoon day continuer parce que ak jamonoy nguuru Macky Sall ngay gis patron de presse yi am xaalis lool ñu ci bari bari alal. presse bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ci bari bari alal maanaam nguuru Macky Sall dafa am tamit lu bari loo xamante ni bi def na ko ci presse bi maanaam ñu ci bari ci waa presse bi maanaam liggéeykat ya mën nañu bañ a am dara. Mm. mais njiit ya. da nga leen a gis ci xëccoom suuf la ñu ne nekk ci affaire yoo xamante ni maanaam bokk nañ ci séddoo mi donc ñooñu mën nañu ànd ak ki nga xamante ni ki mooy Amadou Ba parce que dañu jàpp ni Amadou Ba mooy continuité ci li ñu ne parce que ñoom li ñuy wax ci seen jëmmi bopp lañ ne maanaam ci seen njariñal bopp lañ ne contrairement ak sénégalais yu bari léegi ni ñuy gisee léegi nag ñii dañ daan ñëw sénégalais yi daan leen déglu ñuy décourager loo nit ñi di tax nit ñi di bàyyi nit ñi dootuñu euh, am courage bi ñu amoon dootuñu am kii parce que lu bari dañ ci daan jouer mais léegi lu ci bari dañoo échec donte nag léegi ay nit juddu nañ sax ci beneen façon boo xam ne doona tut nit ñi dëgg-dëgg mais am na yeneen nit ñoo xam ne commencé nañ di liggéey liggéey euh, liggéey boobu am na yeneen nit ñoo xam ne ñu ngi ci plateau yi. Mm. parce que ñoom yërim dañu dem ba crédibilité amatuñ ko xam nga àddina bi lépp loo gis rek crédibilité la boo ko perdre mm-hmm. mënatoo wax lu saf nit ñi. Mm-hmm. maanaam mënatu la orienté kenn donte nag ba tey mi ngi jéem a ñëw di wax am na ay tribune yoo xam ne fa lay dem pour yëkkati kàddu yi nga xam ne moom lay. yëkkati léegi nag li mu leel waa Pastef parce que loolu kàddu la goo xamante ne bi dëgg la Euh, ñemewu koo ñemewu ko bañ a wax parce que xam nga ni lii mooy li nga xamante ni mooy réalité bi nga xam ni moom moo nekk ci terrain bi. évidemment parce que sénégalais yi jamono ji ñu toll nii dañu ameel ki nga xamante ni ki boobu lañu ñu wax Ousmane Sonko bor te jàpp naa ne sénégalais bu nekk bëgg na koo fay. bëgg na ko fay bëgg na ko fay ci kaw Ousmane ko doon candidat. mais aussi tam bëgg na ko koo fay même bu fekkante ni bii antu luñ loolu bëgg nañ ko koo fay ci kaw ku Ousmane Sonko joxoñ ñu ànd ca nangu ko. loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li wér mais boo gisee mu wax li wax lale di jéem a dugal ci bopp nit ñi ne Adam ok nu mu tuddati Amadou Ba Amadou Ba mën na gagner première tour. Mm. donc là il faut que nit ñi. gën a vigilant jéem a xool bu baax a baax nan lañ fas yéene tëggee li nga xam ni mooy élection yi. parce que Amadou Ba moom mën na nekk it. mënul non c'est pas possible. bu fekkee ni dañu jël Pastef écarté ko. comme ni mu ko waxee ne. peut-être ñoom bu ñu demee dinañ gagné. donc mm. Amadou Ba des fi ak. ñeneen ñoo xam bëgg Sénégalais yi wóolu. xam nga àddina bu boobaa na gagné di. àddina loolu bëgg-bëgg la. bëgg-bëgg mooy bëgg a écarté Pastef bëgg-bëgg la. bëgg-bëgg la boo xamante ne bii judduwut tey bëgg-bëgg bi juddu na maanaam Pastef dafa nekk liir boo xam ne bi dafa juddoon rek ñu bëgg koo faat. ba tey muy jéeg non ku tas parti bi kay jël président ah, parti ba boo ba pare da may laaj ba pare ma bàyyi la nga wax ba pare nga bàyyi ma ma nit ma tontu ba pare ay ca bismillah du dëgg léegi loo laaj <laughs> dama ne ah. ñoom est-ce que pare wuñu pour écarter Pastef li tax mu wax ne Amadou Ba dina gagné mën a gagné premier tour bu ñu leen écarté boole nee nag ñoom ñoo xamante ne nii sénégalais yi wóolu wuñ leen peut-être moom foofu lay waxee Euh, Pastef ñoom ci seen jëmmi bopp dama ne ba muy juddu lañ ko bëgg a tas muy jéggi parce que rajo Ousmane Sonko éliminé yenn yi boobu lañ tàmbali Pastef di gën a jóg ci kaw di gën a dem ci kaw di gën a dem ci kaw ba tey fi mu toll nii tey maanaam seen bëgg-bëgg la mës doom ngir éliminer parti bi nga xam ne mooy Pastef mais li ñuy bëgg ak liy am day faral di woroo hmm. parce que même bi ñu jàppee ne bu ñu tuumaalee Ousmane Sonko li gën a salte ci àdduna nit ñi danañ ko ba boobu la ko nit ñi indil turu Ousmane Sonko mu sell mi pour wane ni ki ngeen di takkal dafa set dafa romb set mais dafa yegg ci sell hmm. kon boobu doxut nga gis ni bi nga xamante ni bi euh, loolu nga xamante ni moom lañ ko doon tuumaal jàllut léegi ñu daal dee ñëw ci beneen point bi nga xamante ni bi tey ñu defe woon ni bu ñu ko jàppee téye ko def ko ni nga xamante ni bi moom la ñuy def du Dia ci ki yooyu ginnaaw bi tuuma yi jibee maanaam mën nañ ko fa jaaree sànq askan wi jóg taxaw ne lii mënul ne daal di am taxawaay boo xamante ni moo tax la ñu bëggoon mënta ne après temps bi jox ñu res jox Ousmane Sonko raison parce que am na loo xam ne bu ñu ko ci dëxëñee woon ci jamono jooju ba léegi dangay ngay jàpp ne yow Ousmane Sonko jëf jooju moo ko jëf parce que du am fu mu communiquer du am fu mu waxee. Mm. mais avec le temps temps bi àtte na ba ñu dem ba yëg ni liñ doon tuumaalkat yëf yi demeewu ni loolu nekk loo xamante ni bii mooy lii kii bi nga xamante ni président Macky Sall teg na. maanaam jël na moom li nga xam ne moom la bëggoon muy nekk def troisième mandat parce que wane na ko ci anam bu ne képp koo xam ne nee nga amut sañ-sañ bi dàq na la koo wax ne am nga sañ-sañ bi defal nañ la promotion kon loolu wane na ni fee laa bëgg a jëm mm-hmm. mais dem na ba jël loolu teg ko ngir wane ne daal di wax ne defatu ko waaye nag daal ne damay yóbbaale Ousmane ko jàppoon naa ni jàppoon na ni man jàpp naa ni jàppoon na ni bu fekkee ne def na loolu Ousmane problème dana am te bu problème amee dina mën a dellusiwaat ci li nga xam ne mooy décision wane ni Ousmane Sonko moo bëggut jàmm parce que président Macky Sall moom ku bëgg jàmm la. ñu daal dee jaay loolu. waaye loolu tamit lañ ca doon séentu demee wu ni parce que séentu woon nañ ni buñ ko defee jàmmaarloo am jàmmaarloo amut silence total. kenn xamut nu yëf yi demee. Mhm. ba lii xew nii xew nii ak ni mu demee nii. Mhm. loolu nag nekk na loo xamante ne tamit beneen équation la. kon ñoom depuis ñuy tàmbali ba nëgën yi. Mhm. Euh, di teg ay jéego saa li ñu bëggoon amul benn yoon boo xamante ne bi am nañ li ñu bëggoon. kon loolu mooy li nga xamante ni bi mooy dëgg fa ñu jëm yegg guñu fa nuñ cay demee ak ku cay dem sunu borom a xam. Mhm. kon kenn warta euh, jéem a jeexi jaaxaloo kenn. léegi nag yirim moom. mu ngi ci li nga xamante ne bi mooy rôle am génnal wax yi génn na wax waaye sénégalais yi ñoom ci seen jëm bopp xam nañ ni ñuy déggee wax yirim sonalatuñ ci seen bopp. d'accord jërëjëf ay Aïcha euh, dañuy wax ci leneen muy euh, Daouda Mine mi nga xamante ne ni àdduna itam ci candidature Ousmane Sonko ak euh, condamnation yi nga xamante ne ni teg nañ ko ci kawam ñu dem xooli ko ànd ak Modou Diouf. tey tey tey man texte laay wax. man li ma wax noonu texte moom moo tant qu'une personne n'est pas condamnée définitivement mënoo koo indi parce que casier judiciaire mu ngi vierge ba tey tey boo Bassirou Diomaye Faye tey tey tey tey bu demoon uti outillé casier judiciaire casier vierge lay am dans matière de condamnation il faut que ñu xam ne également ñetti bal la hmm. première instance am deuxième instance am am am am cassation que ñu condamne la instance nga bàyyi délai yi par exemple. bon defuloo appel ba délai ki après tu forclos la condamnation est définitive. à de ce moment là mën nañu wax ne seen seen condamnation définitive. et à moment lépp lu nga xamante conséquence juridique la dafay appliqué mais tey tey tey tey mu nekk Ousmane Sonko. il encore une condamnation définitive. ci ñetti dossiers yépp nag. Mm. en droit pénal il y a on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas. deuxième principe mooy le droit commun et d'interprétation restrictive boo jëlee texte ba la mu wax daf ne ki nga xamante ne c'est un il a été condamné par contumace bu la jàppee arrêté la ñu wax. wala boo constitué prisonnier la condamnation est anéantie de plein droit et tu seras rejugé lool la loolu la code bi wax te dañ ne bu la jàppee durant. le délai de prescription tey Ousmane Sonko a été condamné pour corruption de la jeunesse corruption de la jeunesse c'est une infraction délictuelle un délit une condamnation pour un délit se prescrit sur cinq ans article 722 code de procédure pénale moom moo la woon ni crime prescription bi vingt ans la bu fekkee ni délit la cinq ans la donc li ñu ciy déggee mooy Ousmane Sonko fii ak cinq ans bu ñu ko ci jàppoon condamnation bi daanu na fii ak cinq ans bu ci constitution xam nga daanu na la condamnation ne peut pas être définitive tant que cinq ans yooyu purgé wuñ ko. xam nga ñoom ils ont fait la procédure de de de radiation avant que ñu koy jàpp. article l du code ne peut pas s'installer sur les célèbres. ceux qui sont condamnés pour crime ceux qui sont condamnés pour un certain nombre de délits benn quantum et ceux qui sont en état de contumace. ils s'étaient basés sur ça pour demander la radiation boobu jàppaguñu Ousmane Sonko. mais même bu fekkee ni def nga loolu radiation boo koy def une radiation boo mu nekk une condamnation définitive. même bu fekkee en état de contumace boobu da ngay bàyyi ba délai purgé wu. bu wóor ne le gars il est état de contumace nga doog nga doog def la radiation man jàpp naa la radiation bi nga xamante moom lañ def en ce qui mhm. tegu dëppawul ak yoon. Euh, Alaaji dégg nga daaw de Mine euh, ni mu expliquer euh, droit tel qu'il est enseigné et pratiqué dans les États démocrates ak par rapport li ñuy gis fan yi ministre bi génnoon na fi premier ministre la justice Ismaïla Madior Fall wax ne condamnation contumace su Ousmane sonk bi est définitive ban dégg-dégg ngay am ci boo déggee kuy wax ci mbirum droit niñ ko jàngalee ak ministre bu taxaw di wax ci condamnation Ousmane Sonko. waaw saa su ñuy wax droit rek nga xam ne droit la ñuy wax. Euh, day leer ci yow mi koy dégg parce que ay boroom xel a ko defar xool nu ñu mën a nekkee ci pénc mi daal di jël ay charte teg ko. Mhm. ne bu lii amee lii la bu lii amee lii la bu lii amee lii la. Mhm. un plus un égale deux nit ñi day leer ci seen bopp. Mhm. nga xamante ni bi li ñuy wax. du nekk ay chinois wala mu nekk beneen làkk boo xamante ni bi dégguñu ko day leer nañ ci yow. Mhm. li nga xam ni moom la wax lépp. Mhm. maanaam da ngay yëg ni. Mhm. kuy wax lu mu xam la lu mu jàng la loo xamante ni bi dafa leer te it keneen ku ko dégg pour nga ñëw weddi ko problème la. mais gis nga saa su dura raxee politique wala mu rax maanaam mu rax nga ciy sédd keneen. wala nga ciy dugal keneen. yow mi koy wax yaay njëkk a tële parce que xam nga lu tax ngay tële di gàtt ak am jafe-jafe ngir expliquer ko ngir mu dugg ci bopp nit ñi. Mm. parce que yow li ngay bëgg a expliquer ci sa bopp. moo tax pour nga dugal ko ci bopp nit day compliqué moo tax ñëpp ji nga xamante ni bii tey ñu ngi lay ñëw di la taxaw di la wax ne la Ousmane Sonko mënta doon candidat bu ñu koy expliquer da ngay yëg ni am nañ ay jafe-jafe pour expliquer ko parce que duñ nekk à l'aise parce que dañuy xam ni mm-hmm. li ñuy wax. xoolatuñu rek la nga xam ne moom la texte yi wax waaye dañuy jël ci texte yi di wut luñ ca dolli ak luñ ca wàññi kiy wut lu mu dooleeg lu mu wàññi mm. ak ki nga xam ne dafa ñëw wax texte yi ni nga xamante ni bi noona la rëddoo bokkuñu parce que kii moom li mu jàng rek lay wax kerewu ci leen du féete naak Ousmane Sonko du ba droit lay wax ni nga xamante ni bi tey droit wut ma jigéen xàmmewut Sa Ndiogou wut keneen li mu xam mooy ay fee lañ teg ne lii mooy fee lii di fay nag lii la kii def lii ak lii ak lii loolu mooy li nga xam ne mooy mbir yi mm-hmm. léegi loolu nag droit am na lum ca wax ak kum mënti doom mm-hmm. waaye nag bu fekkee ne dañ teg droit ba noppi nekk ci kum jëm ñu ne ci sonk ñu ah, bu boobaa ñu xool bu boobaa bu ñuy xool rek dugal gën cee dugal Sonko tour ba Sonko moo xam arrangé wu la moo xam kii wu la loolu moo lay indil jafe-jafe ngir nga mën a expliquer nit ñi parce que xam nga ni li ngay jàng li nga wax du yow doo nga ko jàng. te gis nga li gën a metti ma jigéen mooy ngay wax loo xam ni yow li ngay wax danga koo xam. jàng ko te kay koo xam mu wóor la ni lii nga mm-hmm. jàng. ñu mm-hmm. bari ñu mel ni yow jàng nañ ko. Mm-hmm. ba noppi nag. jàngale nga bëgg ci def loo xamante ni bii leer na la ni kële jàkkaarloog yow ak këley seetaan xam nañ li nga ciy def du dëkk coono da lay dikkal rawatina nag bu demee nag ba li ngay wax mu wóor la ni say moroomu doom say jarbaat yoo xam ne ñoom nga doon jàngal. ñoom ci seen jëmmi bopp ñu ngi toog di la déglu te mu bir la ni li nga leen jàngaloon du lii ñooñu bu boobaa tamit loolu day peser waat encore ci yow. Mm. day nekkaat loo xamante ni bii day nekk ci yow ba tax pour nga mën cee génn aussi tamit day daal di compliqué. Mm. li am solo te leer. mooy Ousmane Sonko. Mm. lii nga xam ni moom la daaw di muy wax képp koo xamante ni kii tey gis nga ko mu jàng yoon. te yoon dong tax muy wax lii daaw de min di wax lay wax kon nag lan mooy sabab nag léegi eh, liñ ñuy bëgg a gëmloo jàpp naa ni c'est pour décourager un ñi nga xamante ni bi ñooy kii mm-hmm. jéem nañ leen a ay plan B mm-hmm. jéem leen a tànnloo ci ñi nga xamante ni bi ñooy njaboot gi mm-hmm. wan leen ne leen parti bi tas na yooyu yëpp c'est pour découragé te démb président Macky Sall moom ci jëm boppam moo ñu wan ni parti bi tasagut ni mu ñu ko wane mooy moo ñu wax nañu def nañ ay voies de recours kon donc mm-hmm. loolu mooy wane ni mm-hmm. tas gi ñuy jéebaaneel ci bitti mm-hmm. ak li nga xam ni moo xew dëgg-dëgg demeewu ni kon defe naa ni euh, waa Pastef ñoom xam nañ euh, teyit la ñu ne ña nga ca parce que la avocat yi di liggéey ña nga cay liggéey defe naa ni ñooy parti bi nga xamante ne bi ñoo gën a yëngatu ci dëkk bi parce que partout ci àddina bi foo dem dégg leen. Mm. ba président Macky Sall rek defe naa ne am lool moom du ko weddi parce que xam na ci dara. Mm. ba mu demee ci Amérique gis na da nga xamante ni noonu la yëf yi doxee. kon mooy parti bi nga xamante ni bii tey ci jamono ji jiñ koy rey tey la gën a dund bi ñu ko xamante ni bii sax bu jubluwuñu pour rey ko mm. maanaam Pastef ci ay réjj réjjeeki rajax rajax yi mu nekk mooy li koy dundal. mooy li nga xam ni mooy def promotion fu mu toll a chaque fois ñeneen ñi bëgg nañ ñu wax ci ñoom mais kenn du wax ci ñoom ñaata émission la ñuy def kañ lañ saa ñu toogee émission dinañu wax ci Pastef képp koo xam ni taal nga télé dégg débat di nga dégg ñoom la ñuy wax seeni mbir ana ñi nga xam ni ñi ngi wër ci dëkk bi ñooñu fi mu toll ñi ngi naan dimbal leen ñu xool leen ñu wax leen ci ñun et pourtant nit ñi taluñu leen sax parce que nit ñi ñi ñu jox bopp mooy ñële seen activité moo leen te seen ñu ngi dem di def seen i ay activité ñu ngi leen di gazé kii def ay affaire yoo xamante ni <laughs> ñoo ñu ngi sonn de àlaaji <laughs> yàlla leen yàlla defal jàmm <laughs> ah. waaw mais en tout cas daal euh, euh, li nga xamante ni bii moom mooy mbir mi moom mhm. jamono ji moom moo nga noonu mooy Pastef <laughs> d' accord dañuy desandi sax euh, ba tey euh, ak euh, Pastef dem ànd ak nag waxtaan bi nga xamante ne ni El Malick sekk na ko ak Maimouna Ndour Faye déglu ko dellusiwaat. xëy na am na lu xëy na am na lu ngeen bëggoon te ngeen ko am. mooy xëy na réew mi pëccaxoo jaxasoo. ba situation indi ñu toxal ay élection ñan ñan ñoo bëgg réew mi pëccaxoo jaxasoo ñan ñoo doon ñan ñan ñooy wootee pëccëxoo ak jaxasoo. ma ne. waaw. déglul bu baax wolof laay wax ñëpp ñi nga xam ne ñi réew mi di doxee jamono ji ñoom arrangé na leen le président Macky Sall wéy nekk fi arrangé na leen ñoo ñooy tax may wax mais li ngeen boo boo nee li ngeen c'est-à-dire yéen ko sekk ak Macky Sall du ñun ñooy wootee non ñun bu xeex bi bu doon ak Macky Sall kese la kon dina yomb Macky Sall mooy élément bi gën a ndaw ci xeex bi système la encore une fois système ba nag la nekk ca biir dafa bari fii kay ñi doon prédire la chaos yéen la non non yéen a doon prédire la chaos yéen a doon souhaiter qu'il y ait le le le si ndànk rek dama ne xeex bi xeexu système la li lay wan ne askan wi dañoo xam ni ñuy xeexee ak fi ñuy xeexee ak fa ñu war a xeexee mooy jamono jii ñi ngi xeex xeex boo xamante ne nii bal tàkkul sagar xeeñu te métit bi muy def ci ñu ñu jàmmaar lool moo ëpp métit bi amoon ci événement yi passé donc le peuple est en avance sur vous. le peuple est en avance sur les hommes politiques. Sur vous. Pas, pas sur nous. Sur tous les le hommes politiques. C'est le contraire. Le peuple est en bah, avec nous, chante avec nous. non suñu tournée disco gauche suñu tournée disco droite suñu xoolee seen kanam gis leen. xam nga xam nga yéen da ngeen da ngeen doon wax combat final. le combat final ñëpp xam nañu lan la waroon doon. lan la waroon doon. da ngeen doon wax naan Macky Sall bu nee day dem troisième mandat du ko fekkee midi du ko fi du ko fi du ko fi. fekk kan moo loolu ak fu ko waxee alors. fan lañ waxee ne Macky Sall bu bëggee def troisième mandat midi du ko fi na leer di nga ma may ma rajo la ban la kam da ngeen doon wax combat final Macky Sall bu arrêté Ousmane Sonko combat final dina am ñëpp xam nañu lan mooy combat final. ngeen ne Macky Sall bu defee troisième mandat. da ngeen koy fekk ci pale bi Macky Sall njuy leen deful troisième mandat sénégalais yi génnuñu taaluñu xeexuñu ba ñu jàppee Ousmane Sonko et dans les stades. ce sont des sénégalais yoo xam ne dañoo am conviction ci seen ci seen ngëm-ngëm ñoom ñooy manifester de manière pacifique parce que li ngeen doon prôné comme mode de combat ak mode de riposte bi bul xëytee ne da ngay ah, waxal peuple bi déglu ma moo leen gën a mature déglu ma soo waxal peuple bi bul ah. xëytee ne da ngay waxal jërëjëf euh, alaaji ñu ji ñu bi ñuy terminer sax ñu ngi wax ci peuple bu mature ñu bëri nag euh, saay soo déggee dañuy yaakaar ne état bi dafa bëggoon euh, gars yi semer la kaw ci dëkk bi su ko defee affaire yi mën a tourner à l'envers ba léegi nii gisuñu li ni mel ñoom jàpp nañ ni comme ni ko El Malick waxee combat bi ñuy def moo gën a graaw fukki junni yoon bi nga xamante ne nii da ngay jàkkaarloog sa adversaire waa xam nga dama seetaan ay ñu bari ñu interpeller El Malick mm-hmm. ñaawlu ne ko waroo dem ci émission femme bi mm-hmm. ne ko waruloo faa dem mm-hmm. euh, parce que ñooñ ñëpp li ñu wax mooy dañ ne ko gis na femme bi buggul Pastef te moomu leen Pastef bugguñu di dégg lu ñu naqari bu leen demati ci yu mel nii mais loolu aussi tamit baaxut parce que doo dem rek foo xam ni danga nga faa war a dégg rek lu la neex parce que loolu euh, moom la ñuy xeex nit ñi parce que loolu la ñuy xeex ca RTS RTS taxawaay ba mu taxaw bu invité ab ministre yenn laaj ya sax du ko ko laaj waaw El Malick lii mu def lu ko war la même bu fekkee ne dafay dem jàkkaarlook koo xamante ni bokkut ak moom gis-gis euh, bokkut ak moom ay xalaat aussi tamit dafa war a dem ngir wax fa la nga xam ni moom la war a wax. waaye warta toog rek foo xam ni mm-hmm. euh, dañ koy laaj muy nooy déedéet mbir mi warta demee noonu parce que yu mel nii mën nañ ci gën a xam mën nañ ci gën a jàng. parce que yu mel nii yu am solo la pour ñu mën a xam kii mooy kan ak mooy lan eh, Maimouna Ndour Faye nag dafa eh, def loo xam ni man comprendre ma lan la. parce que daf ne ñoo daf ne El Malick peuple est en avance sur maanaam peuple bi dañ leen raw. Mm. peuple bi lan la ñuy yuuxu buñ nekkee Sonko Sonko namm nañ la peuple bi lan moo tax ñuy def loolu c'est parce que dañ leen a tere ñu manifester. Mm-hmm. peuple bi wut beneen pexe bu muy manifeste fekk la nga xamante ni bii tey ay bërëb la yoo xamante ni bi leneen a fa doon am ñu jël ko di fa def Sonko namm naa la la ñuy def naqari na d'abord ñi nga xamante ni bi ñoo jiite nawetaani mm-hmm. ba koy interdit ci yenn bërëb yi am équipe yoo xam ne dañ leen wax ne bu ngeen ko defatee ñu def leen ay sanctions. Mm-hmm. kon peuple boobu mm. peuple bu ànd ak ñoom El Malick la El Malick nee na ko peuple bi mu ngi ànd ak ñun di dox mm. ñoom la àndal di dox peuple bi liñ doon bañ jéem loolu la ñuy bañ ba tey dégg nga bay mën a dul fay boo ko seetee moom dafa réer ci biir yi ay waxam loolu nag li ko ko yóbbee candidature Macky bi loolu li ko ko yóbbee euh, manque de professionnalisme la waaw ah, parce que bu fekkonte ni am na professionnalisme dëgg xam nga tey journaliste booy laaj di poser question euh, nit ñi waruñu yëg ni da ngaa mer. da ngay mer ci plateau bi da ngaa far danga nga mer mais mu noon dul fay nag boo ko gisee rek da ngay gis ni ku mer la ku far la loolu sax bokk na ci li tax booy di wax loolu mais loolu tamit booy nañ bàyyi rek mu daal loolu da ngay gis ni ku mer la ba noppi far. waa li tax mu far nag ba noppi mer moom moo ko xam mm-hmm. waaye ci métier mi nga xamante ne bi moom la ne war na gën a mën a jox gëdd métier bi parce que moom loolu moo tax mu nekk maanaam ak ku ko mën a jàppale ak ku ko mën a yóbbu ci benn niveau ak fu mu mën kii li tax mu nekk mooy journalisme boobu la am donc nag daf cee war di wane professionnalisme ba fu mu toll mais c'est que bu fekkee da nga invité nit ki da nga invité nit ne ko pour dama lay laaj pour nga indi leeral mm-hmm. ba noppi ëpp ko coow bëggoo mu développé dara di ko bloqué kon invité woo ko pour loolu maanaam loolu la booy di gis ne dañuy jàpp ni da nga ko gis pour da nga ko invité pour toroxal ko mais damay waxaat encore une fois yi ne leen loolu lu baax la parce que day wane rek mm. ki nga xam ne mi ngi def loolu jikkoom lay wane ci pénc mi te am na noo xam ne boo ko wanee sa jikko ci pénc mi ah bu yàggee nag nit ñi xeeb la parce que jàpp naa ni Euh, nit ki bu la boo ko yëkkatee sa téléphone woo ko ba mu ñëw ci sa plateau wuyu si la kooku sa gan la mm. te wolof daf ne gan ganale mm. mais bu fekkee ne da nga invité sa gan ba pare daal di koy teg ci plateau di waxtaan ak moom ne da nga koy laaj te nanguwoo mu tontu mm-hmm. ba mu gi moom moo lay may pour ngay continuer yow di wax donc loolu vraiment nekk na loo xam ni te sénégalais xamuñu ko waaw léegi nag maanaam nag fi mu toll nii nag euh, dafa bëri bu kuy sàngoo deru bëy waaw léegi léeg nga dégg nit naan euh, faru ma fekk ne <laughs> romb na far hmm. voilà donc en tout cas daal euh, na gën a li ma koy wax mooy na gën a professionnel ci liggéeyam hmm. parce que ci liggéeyam moom da ngay constater parfois que ni am na ay failles yu bëree bëree bëri xam naa nag pareen saay yenn yi li koy waral def formation rajo far nekk ci télé wala nga def formation journal far nekk ci kii loolu dana indi yenn yenn kii. waaw donc mais na gën a professionnel di gën a góor góorgóorlu. waaw wàññi tuuti kii bi quoi xadar bi. yàlla mën na ko jàppale. waaw na gën a góor daal. d'accord euh, daanaka waxtu bi xoj nañu alaaji di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. Ah. di joxante dig daje incha allah rabbi xam naa bi di ñëw gàmm gi lay toom dañuy fekk ñu gàmm pare xam naa après incha allah ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di wax ni ñu ngi kontaan di ñaan sunu borom def ci réew mi jàmm waaw jërëjëf mm, bokk ko ñun ñëpp ay ca ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéen ñu doon bàyyi xel di ñu seetaan ah, di ñaanal ñëpp gàmmu jàmm ak salaam yàlla suñu boroom yóbbu ñëpp indi ñëpp ci jàmm jox leen dig daje nag beneen yoon incha allah.